salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen bokki julli yi bokki taalib yi bokki kuréel bi nga xamante ni dafa sos ci ndigal sëriñ bi muy junnatu liman nazamahu may nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo ko ñoom tey jéggul bokki taalib yi yëpp boote gisuñu suñ jëmm ji waaye dañ nag cee xat jamono rek waaye sant nañ yàlla baax nag moo tax ñu tey ñëw waaye bàyyi woon nañu fi sëñ Abdou ñu teewal fi ak njabootu Touba Ca Kanam gépp di sant sëñ ñu ngi lay sant baax di la gërëm sant sëñ Mamour taxawaay bi lépp dara umpu ñi ndax saa bu ñu jotee bu ñu wàccee bala ñu tëdd dañ ma leeral li fi xew lépp ak fi jaar ak li fi duggal li fi génn lépp wax nañ ma ko ñu ak waa Hizbut Tarqiyyah yeeg yëpp waaye ak waa commune bi yëpp di sant yàlla ci boole gi nga xam ne sëñ boole ñoo ci liggéey bi nga xam ne kaay dañu liggéey sëñ Touba ndax lu kenn man ñaar ko dàq ku ñaar ñaar man kenn ñetti bëre kuy sat nga xam ko waaw kon ñun ñëpp daa ne kon yoon bu ñu jógee Sëriñ Muntaxa nekk ñeenteel bi nga xam ne mooy mooy bi ñeenteel bi yoo xam ne ànd ñoom liggéey liggéey bii ngi jàppale suñu bokk taalib yi ci liggéey bi fekk ñu nekk ca loolu dañuy sant yàlla ci loolu baax a baax a tey soñ sama bopp soñ suñu bokk taalib yëpp waaye di soñ ci yëpp ñëw jàpp liggéey bii ba li ko suñu bëggee am na ndax demee tàmbali guñ dugg dëkk bi xam ne daa mel tàmbali guñ ndax ndox mi bari ba tey nit ñaa ngi ci jafe-jafe moo dem suuf waaye lii mbir mu suñu borom wàccee ci kaw suuf la ñaan rek mu jeexal ko ci jàmm salaam te ñun ñëpp ñu ñu ñu fekke ko te ñaan rek ndox mi moom euh, jàmm la rek ko yàlla ndax bu neexee yàlla mu def ko ay ndox mu tàng wala mu def ko leen waaye bi bi ñu ci ëmbën rek di ko tal di netti la rek jar na ko murid yi nag seen seen xel dal na ndax jëf suñu mën taxaa ji mu jëf ndax ba mu duggee nappam rek mu xam ne yëg na ne ñi ñi ci altis rek boobu la yàlla way fa lépp ci xoli murid yi masta nag mënta saafara jàngoor waaye mën na ko wayfal si gindi yàlla taxaw néew ba delsi waaye dana way fal ay rankoñ kon masa gi siñ mën taxaa di masaw murid yëpp di ko masaw waa Tuubaa gépp eh, di ko masaw taalib yi suñ Tuubaa yi nga xam ne ñoo nekk ci jafe-jafe yi te boole ñu kuréel bi jóg ngir ngir wallu wallu ko jàppale ko foofee di ko ci di ko ci aw di ko taxaw kon ñu ngi sant yàlla ci loolu baax a baax may soñ sama bopp di soñ bokk taalib yëpp rek yoo xam ne jëf juri yi nga xam ne isbitarax yi jëf na tey jii muy téeméeri tonne yi ñu joxe ak fukki loolu ab soññe ci ñëpp ñun ñëpp soññ ci ñoom di ñëpp rek ñun ba jógee tey ñu ci liggéey bi suñu lépp tamit jox nañ ko liggéey bi fas ñu yéene moom insha allahu taala lu murid yëpp def dañ ko def rek ndax ci murid lañ bokk ñun ñii li fi ñëw dafa jot a jaar lépp indi nañ ko fi jox nañ ko fi am na ay tonn ceeb yu bari yoo xam jaar na fi ba ndikkee bañ ne dafa jëm ci fii dana as ko daa jàll si assi kuréel bi ñu saytu ko jàll ko ñoom war a jàll ndax rek la ñu wéyee fas ci ndigal te ñu ko moom moo ñu boole Sëriñ Tuubaa murid nag moom euh, defal mu def bàyyi mu bàyyi rek moom bu ci génn ci amul dara kon ñu seereel adduna sépp ni ñu ay taalibe lañu fas yéene doon ñaanu ñu doon dara ci suñu bopp sëñ bii nga xam ne moo fi nekk sëñ Tuubaa jox na ko suñu bopp bàyyi ko bàyyi nañ ko suñu bopp bàyyi ko boppam noonu moom léegi li ñu yor nag bu ne tey jii ab dërëm bu mu fanaan lépp dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko génne yër ko ko kon li wax fas nañ yéen ànd moom ci xol bu sell ak ak yéen ju ànd yu sëkk loolu maa ngi ko seere ñi ñi ñoo fi bàyyi woon nañ ko maa ngi ci ànd ñun ñëpp ñu ngi ànd ci Touba ci daal ñëpp ngi nii li am lépp indi nañ ko fas yéene ànd si ma jatak laa am na jox ko maa ngi sama bopp di sant mboolu taalibe yëpp ñëpp nañ ci góorgóorwaat te xam ne acca murid moom jot na fii lu jot jot na nañ fexee nag lii moom bu fi amati ci àdduna te mën nañ ko saafara lu mënta am solution am ci àdduna mën nañu fexe ba bu déwénee dara du fi xewati te loolu nag dañuy jàpp te bàyyi rek murid yëpp ñu jàppandoo xañu ci dara ndax bu dee xam-xam bi am na fi bu dee am am am na fi bu dee bu dee bu dee bu dee bu dee yéen a juri am na fi ak ala ji waxal gi bi am na fi li gis moo nag ñàkk a nos rek ak jàpp na nekk benn kon loolu mooy mooy mooy mooy mbir mi kon ñu ngi sant baax di leen gërëm te ñaan rek euh, yàlla nañ yàlla nañ ci yàlla defal ndam ñu ko sëriñ bëggee yàlla ko yàlla defalee euh, moo noonu ñu ànd caa moom euh, su borom sagal ñu ci ba bëggam gii nga xam ne ni mu di toll mu tànn kuréel yii ne dama ànd la liggéeyal sëriñ Tuubaa ci liggéey bi yaakaar jooju yàlla bu ko yàlla tas yàlla na ko yàlla dëgg ci ñun ñëpp kenn ko ñun na xam ne daal bu ko mënoon moom nag moo ko def kon nag bu ñu àndee nekk loolu kon ñu ngi sant yàlla baax siñ bi sëñ Yuusu ñu ngi sant baax yëpp ndax taxawaay baax nañ ma ko léegi ba dikkee ñeen jëf gis ko o gi jëf jërëjëf ñoo ñu antu wàcc lay doon moom waaw kon nañ góorgóor rek borom xam-xam yëpp lañ génn seen xam-xam borom am am yi génn seen am am borom indi seen doole borom xel yi dafay génn seen xel dafay suñ ko boolee lépp dana bàgg kon maa ngi sant yàlla baax di sant te jéggul nag <laughs> fan yow fi ñëwul yëpp rek daaye suñu wéy jur yoo fi toog yi seen blaat teew na fi

maa ngi sant baax di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wa jannatan li saalikin muridi wa jannatan